jërëjëf mbokk àdduna tey ñu ngi fii ci open press boo yëmbal mu jëm le 17 juillet bi ñu jëm diggante ak xale bi nga xamante ne mooy euh, waaye Mbaye Tine numéro 2 Mbaye Tine nekk ndaanaan combat bi weesu dafa ñàkk boo yëmbal combat bi weesu dafa ñàkk waaye mbokk yi presse bi yëpp dañoo nekk ci njàqare ak tiis koo xamante ne suñu confrère la muy Bamba Thiam papaam bi ñu nee suba la tabaski ba tey gisuñu ko ay mbokkam xamuñu nu ñu tabaskee ñuy ñaan li laay war a képp ku gis góor gi na woote ci numéro yi nga xamante ni moom la ñuy yëgle saa su ne ngir yàlla suñu borom nit ko ba mu dellu siwaat ci ay njabootam ndax famille soxla nañu ko njaboot gi soxla nañu ko mbokk yi nag boo yëmbal mu ngi nii open press la woote waaye gis nañ njabooti yëmbal gépp génn ànd ak moom mu mel ni dafa am lu mu lokk ci diggante ak Mbaye Tine lan la bis bi nu mu koy waajee nan la ci fas yéenee ñëwee combat bi combat tay ma dee la ci moom wala déet ñu ngi lay nuyu bàyyi la nga nuyu mbokk internet yi boo yëmbal ginnaaw baatu onze billahi mina seytaana rajim ginnaaw bi ñu santee yàlla di julli ci yonentam bu tedd bi di sant sama ñaari waajur bu wér di santaat sama ñaari waajur bu wér di yërëm sama ndey di yërëmaat sama ndey di sant sama sëriñ Seydi Abou Bakar si yàlla yàlla yokki leeram te taasu ci barkeem di wax ne jërëjëfe Ndoye Sy jërëjëfe Ndoye Sy Ndoye Sy yàlla na fi yàgg te wér ak képp ku ko wax avant avant avant tout dañu am ay naqar yoo xam ne tey dafa am ñoo xam ne dañ doon ànd ak man di soon ci samay combat tey fas bi bii ma dugg bi muy ñëw sama xel dafa dem ci sama benn booy ñu koy wax daaw yaakaar naa open press bi mu mujjee dem moo indi fasam yóbbu ma tiset bi ma sol boo ko ci boo ci xoolee di ko ci gis mu yàggoon a bokk ak ñun lii tey yàlla jël ko dañ koy ñaanal fi mu tëdd gënal ko fuuf fi mu jugee ak sama benn grand boo xam ne da doon jàpp ci samay combat mooy élage Hadj dadoon doon ci man ak sama benn grand boo xam ne ñëpp xam nañ ko ci koñ bi muy xalil da doon sonn ci samay mbir maa ngi koy ñaanal fi mu tëdd almeer yi mu tëdd suñu borom xaaree ko ci àjjanay firdaws ak Modou Fall dafa am ñoo xam ne combat bi seen combat la xalaatuma ci sax ñàkk benn yoon bu jëree ñu sacrifier suñu paket indi ndam bi dañ koy def ngir ñoom parce que ñooñu dañ doon sonn ci samay mbir doonuñu ma woon seetaan benn yoon kon tey combat bii nii dafa bokk ci ñi ma koy bëre waale waaw di nuyu nag presse bi fi teew ñëpp parce que tamit woote ngeen bàyyi seen yitte yëpp ñëw aw ma seen fay di nuyu waa yëmbal bis bi bisu jaay pere gi la bis bis bi bi waa Boursois ñoo moom bis bi waa Def Buzz ñoo ko moom. bis bi waa Paris ñoo ko moom. bis bi waa Koñu Njaago ñoo ko moom. bis bi waa Mbawar ko ñoo ko moom. bis bi waa Quartier Basse ñoo ko moom. bis bi waa bool bi ñoo ko moom. bis bi yaa ak Mbaye Tine yéenay nekk ci digg jëm. lan nga fas yéene jëflante ak Mbaye Tine. waaw xam nga nee na gaynde mar na wax waxaat du bëri wax fàttali la yaakaar naa ñoo ko doon waaj di ko waaj ba tey la 14 incha allahu rabbi mu war a doon dimanche. avant tout dañuy ñaan jàmm yàlla may ko wér may ma wér. waaw parce que bu amul wér du ñu bëri. xam nga xam naa ko xamul laa am. Dakar la bu mën a défendre la. man béytu mbër bu déggoo li ma la wax. Thiatou Mbaye Pathé na ma liggéeyal ah déggoo li ma la défendre rek ci bëri. benn mbir la mën ci làmb muy défendre. xoolal kéemaan laa wax moom la mën ci bëri jàpp geebu ras. nee na ci ginnaaw Lac de Guiers 2 la nekk. bu di ko muy entraîné nag moom suba ngoon bu dee bu la jàppee baat ak la lay man man yëmbal laa juddoo fii laa yoroo te du xeeb fu ak ku mën a nekk ci ginnaawam man li ma gëm mooy waaye yëmbal ñoo nekk sama ginnaaw te li nekk sama ginnaaw ñoo ma moom sax nee booy wut booy wut rek boo ñëwee yëmbal la ko kon lan laay wuti ji ñeneen wala di tiit ci ñi nekk ci ginnaawam man su ma naree tiit sax laa la wax ñi nekk ci ginnaawam waa yëmbal dugal ma ci almeer yi yëmbal lañ fii tapet dëkk ragal dëkk man li ma jaaxal mooy Mbaye Tine dafa mel ni dalaa xam te xamoo ko ndax mu saa su ne loolu lay wax ba ci signature bi passé nee na daf la faa bëggoon fekk ndax daa ñëwul fekk nga dem yéen ñaar boo seetaanee loolu mu wax baat yooyu ci yow nan la lay def xam nga mbër xam nga mbër booy bëree ak ay mbër te bëre woog ñu am bës di bëree boo yëmbal combat bi nee naa la lépp lu mu ci am boo yëmbal moo ko may na ko santee boo yëmbal. lu tax loolu. amu ci dara. Mbaye Tine kan moo la moo tax ma jël ko. merci xamal la tax ma jël ko. daa takk rojo yi fu ne mu nekk fa. fu ne mu dugg fa boo yëmbal boo yëmbal. waaye incha allahu rabbi le 17 laa wax de bu dawul booy yëmbal gis combat bi ki nga xamante ne mooy Mbaye Tine Junior gars yi jox nga xamante ne mooy favori nga am ci loo jógee ci sa combat yi nga jógee ci li nga xamante ne mooy ay ci kaw li nga xamante wax ci loolu ak Mbaye Tine jamono ji combat bi ak lamb ji lim ko victoire laa jóge damaa daan damaa daan alliance daan far bu jar ibam euh, stade Léopold Sédar Senghor ci combat Balla Gaye Modou ma ñëw daan euh, mbëru parcelle bi nu mu tuddati décce décce bu dóor dóoraat ma jóge ci décce daan xeeru ngor moor kànkang moo ma daan sama combat bii mu mujj te ku juumul doo daanu ku juumul doo daanu waaw gars yi nee nañ sarax la kon damaa nekk ci autoroute à péage dañ ma amoon fuñ ma bloqué woon rek te joxaat nañ ma sama carte incha allah damay def. favori bi jox Mbaye Tine waaw xam nga favori moom li may wax rek ay nit ay nit ay nit ñooy xool combat xool ci lu leen neex. xool ku leen ñu jox ko favori te dañ koy nangu nag ci làmb parce que làmb joo gis am na favori waaye incha allah man jox naa ko sax favori man boo yëmbal jox naa ko favori waaye du fabari buy daan man maay daan incha allahu rabbi maa ngi lay fay. mu mm-hmm. ngi yëmbal. Mm-hmm. waaw Mbaye Tine yaakaar naa mbëru yëmbal daan na ko mm. mbëru yëmbal daan na kon su ma waxee ne modèle bu ne am na yëmbal kon boo ma laajee ndax yëmbal am na modèle boo xam ne mën na daan Mbaye Tine ndax dañ koo daan kon yaakaar naa ñaaku fi mooy li ma wax léegi rek moom amagul fii victoire te incha allahu rabi du fi am victoire waaj nañ niñ war a ànd ak samay mbokk allahu rabbi baytin laa la wax de arbit moo ko fi bàyyi boo yëmbal tëddal ko incha allah mu ngi jàkkaarloo yow Fass lan ngeen bëgg a def jëflante ci digg géew bi bu arbitre ne mu ngi nii di la xool waaw mbaytin li ma koy yóbbante moom du def dara parce que xaaruma ci moom def li ma xaar ci moom mooy jàpp dee man maa soxla man maay def incha allahu rabbi laa wax de maa ngi ñaan suñu borom may ñu wér fu mu taxaw ma fekk ko fa dama koy duma daan ko incha allah. waaw mi mystique dégg naa mystique ci xel la tey yaakaar naa am na suñu papa yoo xam ne dañ doon bëre te ñi leen doon ngemb ñu ngi fi tey dañoo tekki seen gemb bi ñu ñàkkee doole dañoo tekki seen ngemb dem taxawee ne kon mystique dafa bokk ci làmb rek ay muslaay la rek day mottali waaye xam lan moo am sens ci làmb mooy physiquement nga pare entraîné li nga war a entraîné te physiquement ñun pare nañ non loolu du lu ñuy wax maa gën a pare mbaytin du lu ñuy wax lu ñuy jëf la. mbaytin déggoo ma man man damay dem Gambie dañuy yàq ci man xam su ma demee foofu aw ma benn jot aw ma jotu tëdd nelaw jotu entraîné laa am. durant deux mois et quelques maa ngi gàmbi liggéey li ma liggéey nag du damay taxaw di ko wax da nga koy jëfe nit ki boo defee li nga war a def boo arbitre sifflé da ngay jëfe loolu waaye du wax. xëy na nag presse bi ñoom wax lañ bëgg kon il faut ñu wax. lan nga mën a rassuré waa yëmbal. que bis ba le 17 incha allah rabbi di nga jël ndam li takk ko waa yëmbal waa yëmbal du ñu supporter mbër bu ñaak jom du ñu supporter yaafuus parce que fii ak Ibama vraiment dafa sori ku bàyyi sa yitte rek ndam moo la tax a jóg incha allahu rabbi li ma leen di mooy ndam yàlla moo koy maye waaye nit mooy sabab lu lu tax yàlla may ko sabab lu naa ko te dinaa ko allah jëmbal waaw mu ne bëri rek ngay wax sama la ñëw ci xeex bi xama laamu dóor wax daguñu waaw waaw waaw waaw dag xam nga xam nga xam xeeru ngor amul benn booy boo xam ne mën nga ko ci xeex te psychologiquement bëri nañu ak moom bëri dóor bëri ñoo ak moom bëri seen te incha allahu rabi ku xeeru ngor jaaxalul du mbay mbaytin mi nga xam ne loxoom du jug moo lay jaaxal nee naa la combat nee naa la combat bi man man man xam nga sànq dañ ma laaj ma ne leen man maay diriger moom ne ngeen rek la am ci combat bi maay xeex maay daan incha allah loolu dafa leer. jërëjëf na woo wàllu mobilisation foo ci toll. nga woo say mbokk joxe rendez-vous ba le 17 incha allah. waaw wax dëgg yàlla tey ay mbër rek ñoo nekk sama ginnaaw te yàgg nañu toog ñun mbëru yëmbal yi di jooy benn jooy benn jooy rek la mbëru yëmbal yëpp di jooy mooy ñàkk ku leen jàppale. xale yaa ngi nii ñëpp a pare bi dee dem stade waaw gis nga caatu baay Paate moom mi nga xam ne mooy la vainqueur da Ada fas dégg nga li mu wax ñàkk jàppale moo tax mu tekki ngeem bam nekk ci oto yi waaye yàlla dafa dogal nag combat bii nii sama bët sama bët xonkul parce que dafa am ñoo xam ne moment bii may wax ak yow dañoo jënd ay bologu ticket may ko boo yëmbal ku ci mel ne madame Ott daf ma may ñaari bologu ticket la ma jëndal nekkul di di leb wala lii de daf maa jënd ko xaalis baa ngi nii ak xaalisu kaar xam nga Modou Mbène tey dafa waroon a ñëw fii waaye instant yi ñoo ngi ci campagne yi te dafa xat te tamit mënuñu taxaw fii presse bi toog di leen xaar moo tax teew fi jëndal na ma ñaari bologu ticket incha allahu rabbi laa la wax de Iba Mar boo yëmbal kenn du ko fa ëpp mbooloo incha allahu rabbi ak ak ay nit ñoo xam ne tamit dañ may dañ may jàppale ci fépp ku ci mel ku ci mel ku ci mel ne ku ci mel ci mel ne Cheikh Mbacké Ndiaye soxla naa eddam moom maa ngi koy xaar xam nga ku ci mel ne Moussa Guissé séeri may maa ngi koy woo ci combat bi ak ministre Assane Diatta Assane Diatta maa ngi koy woo ci combat bi xam nga Maguette moom tamit maa ngi koy woo ci combat bi soxla naa eddam Diarra Gueye maa ngi koy woo ci combat bi tamit